Euh, mooy li nu wax sànq rek euh, mën na noo bañ a bokk li nu xalaat ndax bi moo demee noonu day am opposition am ñi nga xam ne ñooy gouverner président nag yàlla def na moo ne ci bopp réew mi moom maanaam yittey réew mi moom la yitte woo ah xëy na it ñeneen ñi am nañu yeneen i yitte waaye nu mu mënti demee rek nanuy rafetal day am solo ndax wax ba yàqule it euh, loolu it kilifa war na koo moytu waaye nag bon ku nekk ak li nga gisee àddina mais def naa ne politique aussi weesu na foofu euh, politique ku xiiro ak yu mel noonu Sénégal passé na ko da indi kay sa ay xalaat yu bees ne mbay mi nii laa ko gisee njàngum xale yi nii laa ko gisee liggéey nii laa ko gisee bu ko defee nag waxtaan wi doon waxtaan woo xam ne ku nekk di nga ci jëlee njëriñ waaye xalabanteeg yooyu def naa ne Sénégal weesu na foofu. mais ci domaine woote waat rek ku ne mën a delloo si xel yi. Euh, da ciy am solo loola lool yàlla di ñu may aussi ñu dese suñu sago ndax sago dafa baax boo nekkee boo nekkee njiit kooku it ñu ci yee ñëpp di ci woo ñëpp. ci domaine boobu soxna si soo déggee.